dal leen ak jàmm yéen a kii abidi Walf Quotidien moom lañ koy doore mu ngi ñuy jàngatal ci wàllu politique xëy waxtaan ak Mamadou Lamine Diallo euh, njiital mouvement tekki jot naa artu euh, sénégalais yi xamal leen ne njiit réew Macky Sall naam bokkatul euh, ci élection présidentielle yu 2024 waaye ba tey mu ngi ngoy ci nguur ak yeneen ak yeneen la muy dox moom njiit réew Macky Sall mooy fexe ba tànn ka ko gën ka ko ñor mu teg ko ci bopp réew mi yéen a kii ñu dégtal ni réew yu bari doxalee ci mbir moomule yéen a kii abidi Sénégal ci doxalin goo xamante ne woon na ci ci diggante Senghor ak Abdou Diouf na Senghor tànne Abdou Diouf dénk ko réew mi laata muy dem loolee tamit gis nañ ko ca Mauritanie Aziz ak Gazouani gis nañ ko ci Angola diggante Dos Santos ak kam fa jot a ci bopp réew ma yéen kaabidi Walf Quotidien xëy ñu ko leeralal ci xëtam bu njëkk yéen kaabidi las ne bokkatul ci ñi dagan batu askan wi 2024 waaye nag partem tàmbale na am jafe-jafe di APR rawatina coalition Benno Bokk Yaakaar déggoo ga demeetul noonu la koy xew démb ca makkanu APR ay farando Amadou Ba ak eh, ki nga xamante ne mooy Abdoulaye Diouf Sarr ñoo fa doon laale jàppante ga taroon lool ba lu jot eh, lu bari jot a yàqu ci makkanu APR ci mana mana goo xamante ne eh, kenn ku nekk tàmbale naa fësal candidature am ci élection yooyu le yéen ki abidi le quotidien ne guerre de positionnement kenn ku nekk yëkkati loxoom ne su dul man du baax ci diggante Amadou Ba ak Abdoulaye ba tax na seen jege ñaale jot fa laale jàmmarloo ga taroon lool jot Euh, makkanu APR euh, seize ya jot nañ leen fa tojateek yeneen ak yeneen yéen ki abidi Le Quotidien moo ñu ko yëggee yéen ki abidi Turbine ci jamono joo xamante ne njiitu réew Macky Sall newul ci réew mi dem naa tukki euh, ci jamono jooje ay farando Amadou Ba ak Abdoulaye Diouf Sarr doon jàppanteeg ñol ñol ga bari lool kenn ku ne bëgg a kañ ak bak candidature am yéen ki abine démb nag Amadou Ba sax mujjutoon jël kaddu dafa mujje gedd ndaje ma génn makkaanu APR yéen ki abine bu ñu deful ndànk mun ñàkkat eh, Ndakaaru nu mu ko ñàkke woon ci élection locale yi ñu weesu ñàkk ko itamit ci élection législative yi ñu eh, bi nga xamante ne moom ca la ñu jógee eh, yéen cabinet lu aju ci candidature Benno Bokk Yaakaar Thierno Lo maa ngi cay dànkaafu di artu njiitu réew na fexe daal ba tànn candidat goo xamante ne dina leen doy ci waxi nag doxalin mu ngi ci yéen cabinet di turbine yor yor gi ne xeexoo ga taroon na lool ci diggante ay militant ya féete ca Amadou Ba ak Abdoulaye Diouf dana ka ŋoy famu ŋoy eh, ci candidature coalition Benno Bokk Yaakaar yéen kaabi di direct eh, news ne li am ba des mooy ak lu mun a xew ak lu mun a am nañu jàpp ne candidat bi gën ci Benno eh, di Amadou Ba ndax wone na ko ci doxali nag mat mu ngi ci yéen kaabi direct news yéen kaabi di la dépêche républicaine di ñu xam dek ay militant yoo xamante ne jóge nañ ca Ziguinchor wut si Ndakaaru ngir taxawu kii di Abdoulaye Daouda Diallo ngir taxawu ko ci candidature am jëm ci élection présidentielle ñu jëm peuple quotidien lu jëm ci yooyu lee woote tànneefu njiitu réew 2024 euh, coalition Benno Bokk Yaakaar euh, ñu ngi ci euh, ginnaaw njiitu réew Macky Sall ne ku mu tànn baax na ci ñoom ngir mun ko gunge ci yooyu le woote yéen kabi di enquête ne yëf yaa ngi bëgg a yéex bu ñu sukkandikoo ci Mamadou Sy Albert am na ci taxaw seetlu gam ca def ne yéexaay gi am ci tànneefu candidat bu Benno tàmbale naa jur jafe-jafe ci Benno Bokk Yaakaar bu ñu deful ndànk sax Benno mile ci tasaaro la jëm bu ñu sukkandikoo ci Mamadou Albert yéen kabi di euh, point actu du ñu jàngatal ay candidat euh, ci élection yi la yéen kabi ne seen candidature jekk na ña naam mun nañoo suqali Sénégal waaye nag pour ñu mun a jàll dina jafe lool am na lu bari loo xamante ne moo leen tënk euh, boo jëlee candidature candidat bi di Serigne Mboup ku demee ni Bougane Gueye Dany ku demee ni Déthié Fall ak Thierno Alassane Sall ak Pape Djibril Fall ba ci docteur Abdourahmane Diouf kenn ku ne ci ñoom am na loo xamante ne mun na la gàllankoor ci wote tànneefu njiitu réew yi ñu jëm yéen kabi di 24 heures ne F24 dànkaafu nañ ca njiitu réew Macky Sall bëgg nañu mu amal élection yu aw ci yoon ku ci mun a bokk mun caa bokk bokk na ci la euh, sàkku mooy ñi caabi féete ginnaaw ndax politique nañ leen bàyyi ñu am afiya euh, delluwaat ci seen njaboot ak itamit euh, fexe ba teg gi la ñu teg Ousmane Sonko dar ko ba ba léegi ca këram munul doxi soxlaam F24 ne loolee na deñ na mu gën a gaawee yéen kaabi di l'évidence di ñu dégtal Bougane Gueye Dany yekk na lu mel ni xeme njiitu réew Macky Sall artu na lu bëri njiitu réew mi Macky Sall ak na muy doxale yéen kaabi di le mandane Birame Souleye Diop doonoon ku toftalu ci Ousmane Sonko ci Pastef ci jamono ji ma nga ndungu siin am na ñu jog nag taxaw ngir saku libération ñu génne ko ca kaso gamu ne ngir mu delluwaat ca Thiès Nord gamu jiite yéen kaabi ne nag ñi jog euh, ngir taxaw Birame Souleye Diop am na ci ñoo xamante ne tànk war la ñu gën a wone bëgguñu Birame Birame Souleye Diop euh, génn ca kaso euh, gamu ne yéen kaabi di l'observateur xëy duñu jàngatal Mamadou Lamine Diallo waxtaan gu yaatu la seq ak yéen kaabi mu ngi ñu dégtal euh, projet de loi goo xamante ne jëm na ci jëmmalaat karin wa ak Khalifa sal ngir ñu bokk ci yile woote loolee Mamadou Lamine Diallo ne andu ci njiital mouvement tekki jot na itamit dankafu askanu Sénégal nañu bàyyi xel njiitu réew Macky Sall ndax doon na koo xamante ne dugal na bopp ci làmmeñ maanaam doonul candidat waaye la ko yitteel mooy fexe gën di ngoy ci nguur yéen kaabi di euh, Sud Quotidien euh, xëy du ñu jàngatal lu aju ci wàllu pétrole ak gaz bu Sénégal ca mar ñu ngi doon séentu barilu pétrole yu njëkki maanaam barigo pétrole yu njëkki mun a génn ci at mi waaye nag puusaat nañ ko ba 2024 bu ñu sukkandikoo ci opérateur bi di Woodside yéen kaabi ne ëllëgu pétrole Sénégal jur na waxtaan ci jamono ji yéen kaabi di Les Échos ne Woodside moomule dàqaat na nag barilu pétrole gi nga xamante ne ci weeru juin 2024 lañ koy séentu loole nag mun jur njeexital ci koomu euh, Sénégal yéen kaabi di la soleil di ñu dégtal euh, jafe-jafe comme groupe La Poste di ko dund booba léegi ba tax na am na plan pexe yoo xamante ne lan lañu lan lañ ko ngir suqaliwaat euh, kër gi di La Poste Mamadou Diaité mi jiite Poste wax na ci mu ngi ci yéen kaabi di la soleil yéen kaabi di suñu làmb xëy waxtaanee combat Eumeu Sène Tapha Tine fukki fan ak ñaar ci weeru novembre gi ñu jëm yéen kaabi ne nag bii mooy juróom-ñett juróom benneelu dugg